Teledyne love Teledyne love ay waxtaani nañ ba jàpp bees sama fit ma nara dund lu bees stress ma rey ndax maa ngi dugg ci te sëy du jaaxaan loolu la lislaam santaan jërëjëf mbokk yi ñu bàyyi xel fii ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew fu ngeen mën ci nekk ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci bàyyi xel bi euh, tey jii nag ñu ne dañ koo jagleel ñi nga xam ne ñoom xam ne moom moo di xew boobule euh, tey jii nag ñoo ngi fii ci Dakar Pikine Gazelle Rue 10 fa seeni fee fekk si nag xale bu am jom euh, ris lool ci boppam di Ndeye Penda Diop di doomu Baara Diop ca États-Unis ak nga xam ne moom moo di ma Seck fii ci Pikine Gazelle waajal nag li nga xam ni nii moom moo di am xewam 6 juillet incha allah ah, ni ñuy def rek mooy dañuy ànd ak yéen dugg ci biir kër gi xool nday Penda madame Gaye wax na naka la ko seenee waajal ah, xewam si juillet incha allah kon fas yéen dem ci biir. ngeen jëf yi comme ni ngeen ko waxee woon sànq nag ñoo ngi nii toog ak madam Gaye Ndeye Penda Diop ni ma leen ko waxee woon di ki nga xamante ni moom moo war a def xew bu am solo bu riche fi nga xam ne moom moo di ci Pikine Gazelle 6 euh, juillet incha allah bi ñu dëgmal Ndeye Penda ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk yi la seetaan ak ñi nga xamante ni ñoom nga fa yéene yëgal xew bi ñu ngi lay nuyu. Euh, asalaamaaleykum Awa maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna. di nuyu samay mbokk di leen nuyu te di leen jéggalu ci déplacement bi aussi di nuyu waa àdduna daal di nuyu samay mbokk tamit. nday yaa ngi waajal xew jëm 6 euh, juillet incha allah mu nekk euh, sa mariage war nekk sa réception nga di ci woo ñi nga xamante ne ni ñoom nga lebaloon waaye itam di ci woo ñi nga xam ne lebalo goo leen. effectivement awa ni nga ko waxee noonu la amee waaw dama bëgg def sama mariage le 6 juillet incha léegi nag maa ngi ciy woo képp koo xam ne nii xaytu Ndeye na nga am di jàmm Ndeye Penda nga di ci woo samay mboq samay dëkkandoo di ci woo ñëpp di ci woo sama papa Barry Diop ba États-Unis di ci woo mboq mi nekk États-Unis yëpp waa New York yéen ñëpp maa ngi leen di woo di woo waa Touba waa Diourbel sama famille jëkkër famille papa Thiat famille Gaye famille Ndiaye ñëpp maa ngi leen di woo di woo nag waa Pikine yëpp nag di woo waa Pikine yëpp yëpp ndax Pikine moom samay xarit lañ man gëm naa ni awma sens interdit fenn moo tax maa ngi woo ñëpp di woo waa Sénégal. fi nga juddoo fi nga yaroo fi nga fekk baax sa ay parents tamit fi la ñu nekk kon yaa ngi woo ñëpp ak tamit mboolem euh, sa mbokk yoo xam ne ñu ci biir réew bu Sénégal. <laughs> waaw maa ngi woo di woo samay bàjjan samay mag. samay mag nag précisément samay mag ndax ni ndax man xale laa te ñoom ñoo ma mën a wan fi may jaar samay mag maa ngi leen di woo ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci ba mu baax jàpp ni nag ku ci nekk boo jàppee ni sa la rek dinañ ci am réussite samay mag maa ngi leen di woo ñu ñëw jàpp ci xew bi def ko ku nekk na ko def ni sa yëf la bu soobee yàlla woo naa ñëpp daal bàyyiwuma kenn. waaw sama famille yaay maa ngi woon waa Koungheul waa Koungheul moom maa ngi leen di woo bu baax a baax a baax a baax a baax di woo waa Saalum waa Kaolack bàyyi ma fenn ñëpp maa ngi leen di woo. programme bi naka la fas yéenee tëddee. waa léegi nag programme bi moom dañoo bëgg def yendu. waa ngoon ngi ñu def jàkkaarloo bu toog ñëpp ñëw ku nekk waaw bëgg naa ko ku nekk sañse fulaale ma tudd tuur ma ñàkk tudd tuur woo naa ñëpp ñëpp woo naa leen le 6 juillet fii. di ngeen xam ne Pikine dina wàcc ba zéro degré. lépp dëgg waa Sénégal waa diaspora maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp man maa ngi tudd Aji Sukay Yadd madame Seck di umpaañu Ndeye Penda Diop di leen woo nag yéen ñëpp ci bésu Ndeye Penda bi le 6 juillet incha allah di ñaan yàlla ñu dugg ci ak bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin di jiital nuyoo bi nag waa Bawol su ma woowee waa Bawol woo waa Waalo woo waa Saalum. mais jël lépp aussi di ko teg ci loxo sama sëriñ sama xarit di Cheikh Bass Gueye muy borom këru Ndeye Penda ndax lii yëpp moom la ndax euh, vraiment macha allah teral nañu sagal nañu macha allah am na yërmande ci ñun. ñëpp nañu fekk si Pikine Gazelle muy mbokk yi muy am di jàmm yi muy ñëpp di ñaan yàlla ñu dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di sant di leen nuyu di ñaan yàlla sunu bis bi ñu jëm ñu egg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin di sant nag Marema Seck suñu jeeg bi ci kër gi waral lii lépp ndaxte moo fi toog di xaar ba tey ji lii fekk ko fi di muñal suñu càmme di muñal jarbaatu jëkkër yi di muñal ñi ci kër gi gépp ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko jox wàccuwaayam jeeg bu baax la bisam bii mu dugg yàlla na ko ci yàlla defal lim ci yootu yëpp yàlla na ko ci yàlla defal xéewal yu kawe njortam di ñaanal nag day pend Jóob sunu xarit sunu doom bàjjen rek lay wax ñun ñëpp ci kër gi jox ñu sunu wàccuwaay moo gën ci sunu lépp boole koog nag yori dërëmam di ñu ko jox ñu di ko xas di ko def lépp muy reetaan di ko ñaanal yàlla ci lii mu jublu yàlla na ko ci yàlla defal lu kawe njortam. bis bi egsi na dinañ ko di mbax papax lépp luñ ci war a def rek dinañ ko ci def.